aussi nos traducteurs. Monsieur le Président, je crois que mon collègue Alphonse Mané Sambou Doussouy wax na ko ñu ngi lay jaajëfal ci liggéey bu yanj bi nga def ci biir Assemblée nationale bi euh, je crois que am na li mu wax loo xam ne lu am solo la li ñu waroon njëkkee te ma jàpp ne euh, defuñu ko mu ñuy topp tey mooy loo xam ne am na ay jumtukaay yu bees yi fi nekk waroon nañu familiariser ak jumtukaay yooyu defuñu ko mais je crois que c'est pas encore trop on peut toujours le faire mais leneen li encore mooy euh, monsieur le président dina am fii ay député yoo xam ni dañuy préférer làkk ci langue locale et ñu gis ne am nañu ay traducteurs am nañu solo ci assemblée bi mais ñu gis ne député yi tey amuñu ay casque pour que bu ñuy traduire ñu mën a comprendre lu ñeneen ñi di wax ci seen langue locale loolu aussi ñu ngi la ci euh, ñax monsieur le président nga jóg ci loolu euh, léegi nag pour wax ci loi Euh, donc 11 euh, 2024 portant révision de la constitution euh, je crois que li ëpp ci député yi bu ñu ñëwee au ñu wax ci loolu mais dañuy versé wu dans la politique politicienne loolu nag wax dëgg yàlla c'est ñu ngi koy regretter ñu ngi koy rëccu askanu Sénégal ñun nag bu ñu taxawee fii askanu Sénégal la ñu ñor askanu Sénégal la ñuy waxal alors monsieur le monsieur les ministres ñun dañu jàpp ne nous voulons rester droit dans nos bottes parce que nag ci jamono jooju ñuy woote élection yu ñu mel ñun coalition Yewwi Askan Wi ak intercoalition Yewwi Wàllu dañu mës a ne lu mel nii duñ ci laale duñ ci laale dafa am lu mu tekki lu mu tekki mooy bëgguñu te bi ñu demee ba càppandaaw ba ci élection présidentielle gis nañ ne askanu Sénégal ci programme bi leen candidat Bassirou son excellence Bassirou Diomaye jaaxaar fay jaay jënd nañ ko te ci programme boobu dafa bokkoon ci suppression de ces deux institutions que ñun ñu jàpp ne xëy na man du ma ne amul benn njëriñ mais xëy na liñ ci séentu woon ak ni muy doxee du benn ba ñu jàpp ne ñun réforme yi ñu bëgg a indi ci Sénégal bii ñu proposé Sénégalais institution yooyu amuñu fa place ba tax na ñun dañu gëm ne institution yi dañ ko war a supprimer dégg naa fii nag ay député yu naan euh, am na benn ministre bu dem ci télé di naan bu ñu ko supprimer dañ koy remplacer il faut rétablir les faits ministre bi waxul ne dañ koy remplacé dafa ni ci programme bi ñu proposé Sénégalais yi am na beneen doxalin bu ñuy am ci doxalin boobu mu indi ci les pôles territoriaux les pôles territoriaux donc il faut que aussi ñuy respecter nit ki li mu wax ñu koy waxee noonu leneen li ma bëggoon yokk ci lii euh, monsieur le ministre mooy euh, ñu ngi évoqué déclaration de politique général du premier ministre Ousmane Sonko ma lay yóbbante nag ci le premier ministre monsieur Ousmane Sonko ne nag assemblée nationale man tey laa xam ne daf fi bëri ay fans assemblée nationale Ousmane Sonko ay fans rek la fi am parce que tey néew na député ñëw taxaw fii wax te waxul premier ministre mais ma jàpp rek ne je crois que bu fekkee ba tey monsieur Ousmane Sonko premier ministre de la République du Sénégal ñëwul assemblée nationale fii def déclaration de politique générale ñun dañu war a xoolaat suñu bopp lu waral lu waral ñu nangu ne dañu war a réviser les textes de l'Assemblée nationale la loi organique muy suñu réglement intérieur parce que ñun ñoo njëkk a jalgati yoon assemblée nationale moo modifié la loi organique ba pare mettre ko à jour modification boobu nag reconnaîtrewul monsieur le premier ministre te ba tey bi may wax ak yow ah xanaa peut-être monsieur le président de l'Assemblée nationale bu fekkee yow distribué nga yeneen réglement intérieur bu bees te man jotuma ci nga wax ma ko mais ba fu ñu nekk nii tey règlement intérieur bi ma yor reconnaîtreul monsieur le prés euh, le premier ministre Ousmane Sonko donc nañu tey ñu dal parce que dafa am benn processus bu mu war a topp processus boobu nag bokk na ci bu jógee fii dem présidence bu jógee présidence dem conseil constitutionnel kon bokk sama gars yi ñu ngi leen di invité ngeen dal Ousmane Sonko dana ñëw fii ku xam Ousmane Sonko nga xam ne du tapet Ousmane Sonko du daw du dellu Nafi Fofana, vous avez, Seydou Diouf, vous avez la parole. Suivi Je vous euh, remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, je voudrais voir avec vous à quand la promulgation de la loi organique relative au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et j'entends certains qui se disent experts nous dire que le Conseil constitutionnel a un mois pour statuer. Le Conseil constitutionnel, en l'espèce, n'a pas un mois. Le Conseil constitutionnel a un mois quand il s'agit d'un recours en contestation d'une loi déclarée inconstitutionnelle ou en contrôle de contrariété par rapport des engagements internationaux. Mais pour le contrôle de conformité, le Conseil constitutionnel n'a mois. La preuve, la loi organique relative au Conseil constitutionnel a été adoptée ici à l'Assemblée nationale le juin. Le Conseil constitutionnel, le 8 juillet, l'a déclarée conforme. Donc il ne faut Alors à cela, il faut qu'ils Et je pense que c'est important. Monsieur le ministre, euh, moi je n'ai que ma dignité de parlementaire. Et dans mon parcours politique, j'ai toujours fait preuve de respect et de courtoisie républicaine à l'égard de tout le monde. Je n'ai que ma dignité. Quand on considère que je ne suis pas digne de recevoir une déclaration de politique générale qui n'est qu'une déclaration informative sur les orientations du pays, je ne peux pas être digne de réviser la Constitution. Il faut être cohérent. Réviser la Constitution est un acte beaucoup plus grave que de recevoir une déclaration de politique générale. Parce que la Constitution, on la récrit, on la révise, on l'inscrit dans le marbre. C'est cela le problème que nous avons. Si nous avions fait une DPG, il n'y aurait pas eu de motion de censure, mais on aurait eu des moments de débat intéressants. Suivi d'une loi de finances rectificative Parce qu'un gouvernement qui arrive a besoin d'aller vers une LFR pour revoir la répartition des crédits. Et après, si on veut dissoudre, on dissout. Où le problème Après, les gens vont aller aux élections. La dissolution, c'est juste le terme d'un mandat, comme la fin de mandat. Il n'y a pas péril dans la demeure pour ça. Et personne n'est né pour rester député ou être député. Et sur le fond maintenant, revenons sur le fond. le grand danger pour la démocratie, c'est le populisme. Et moi, je ne suis pas un adepte du populisme. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas, pas empêché au gouvernement de mettre en place un programme de de, 28 de 428 milliards dans ce pays. L'existence du 16 et du HCCT n'a pas empêché le gouvernement du président Macky Sall de mettre en place un programme de construction des infrastructures judiciaires avec 250 milliards sur 5 ans. l'existence du 16 n'a pas empêché le gouvernement du président Macky de construire des hôpitaux à Kafrine, à Sédhiou, à Kédougou. Et demain, le président Diomaye Faye va inaugurer les hôpitaux de, de de Saint-Louis. Tout ça parce que c'est l'œuvre du président Macky Sall avec le budget de l'État. L'existence du Haut Conseil et du 16 n'a pas empêché la construction des universités de Sinsaloum. L'existence du 16 et du Conseil du Sine Saloum, de Amadou Mokhtar Mbaw, ici à Diamniadio, université d'excellence. L'existence du 16 n'a pas empêché la mise en place et la mise en œuvre d'un programme d'électrification universelle, l'accès universel à l'électricité. L'existence du 16 et du Haut Conseil n'a pas empêché le gouvernement du Sénégal de faire des investissements substantiels pour la construction des infrastructures socio-éducatives.